Eh, li ma lay wax moo di di la ñetti kàddu rek la bi su njëkk mooy di la sant ak mbooleem ñi lay jàppale ci sa ci sa liggéey cant yooyu aussi muy dem ba ci ministre de l'intérieur di dem ba ci ki nga xam ne moo di président de la république mi nga xamante ne bi moom moo leen fi teg ne leen que dee leen saytu li nga xam ne muy yitte askan wi notamment li nga xam ne moo jëm ci ci màggal yi te ngeen koy def ci anam goo xam ne anam gu rafet la di sant aussi monsieur le maire ci li nga xamante ne bii weesu woon na ci màggal yëpp loolu aussi nag ñoo koy def ci turu ki nga xamante ne bii tey jii moo di Cheikh Mouhamadou Mahfouz Mbacké beneen bi également mooy feddali sunu sunu yaakaar ci li nga xamante ni moom la ñu dëgmal te li nga xam ne moom la ñu fi dégg euh, dalal na sunu xel euh, te ca dëgg-dëgg mosuñu am benn jafe-jafe ak ci wàllu organisation ak li nga xam ne moo di administration bi ak li nga xam ne moo di moo di mairie bi kon yaakaar jooju dañ koy dañ koy fetliwaat ci leen di leen xamal ne eh, lépp loo xam ne waras na ko xool saytu ko indi nañ ko wax nañ leen ko jëbbal nañ leen ko eh, jàpp nañ ne tont yi nga xam ne moom lañ ci war a am bu ci yàlla àndee danañ ko danañ ko am Euh, ñetteelu kàddu gi mooy ci ki nga xamante ni moo di jëmmi soxna si nga xam ne moo doon màggal euh, bis bi ak ci bi ci boppam ndax day bis boo xam ne bis bu mag la bis boo xam ne nekkul sax loo xam ne jar kenn di ci wax ndax bis bu dee ba alxuraan ci boppam waxal ci boppam foog naa ne euh, suñu borom moom bu xasee wax kenn amatul loo cay loo cay teg te bisu alxuraan moo moo ko indi soxna si daañu ci liggéeyal waajuram sëriñ Touba ci ndigalu ki nga xam ne moo di sëriñ Falilou te lépp loo xam ne sëriñ bi waxoon na ko ca bis ba tey jii mboole àdduna si teg nañ ci seen bët ba tax bis bi tey dem ba bokk ci bis yi nga xam ne ci bis yi gën a rëy ci réew mi la bokk fenn fu nekk ay jullit di fa jóge euh, rawatina taalibe yi di ñëw di ko ànd ak njabootu soxna May ngir di ko ngir di ko màggal ci da nga xamante ne bii aussi noonu la ko soxna daan defee loo xam ne ëpp na juróom fukki at mu ci ay xasida mu ci alxuraan mu ci ay mu ci ay teranga yoo xamante ay berne yoo xam ne dana ko dana ko beral jullit yi. loolu moo tax ba ñu ngi woo mboolem jullit réew mi yëpp. ne leen kat bis bi nga xam ne Serigne Touba da ko nangu ndax moo tax ba waxtu wu nekk muy gën di rëy di gën di màgg daaw même bu ñu ko wëtiwut kenn ku ne gis na ni nga xam ne noonu mel yool boobu nga xam ne nag bis bi attan na ko ak yéene soxna si ak li mu ci daan def loolu moom lañu yéene mboolem jullit yi ba tax ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ngir le 28 incha allah rabbi ñu dikk Touba ànd ko ak njabootu soxna si ñu def ko na xam ne noonu la ko soxna daan defee den tawfeex ju dellu ko moo di mboolem jullit yi nga xam ne ñoo ne ci biir réew mi ci genn guddi gi ñoo bokk guddi guñ koy defee loolu aussi di yeneen tawfeex te may fàttali ne soxna bi mu fi nekkee euh, màggal gi fi mujj màggal moom mboolem jullit ni ñoo ko ñoo ko bokkoon kon loolu aussi geneen tawfeex da ci da ci da ci judduwaat bëkk dem rek suñu mutaam mi mu koy wax naa ma lool li tawfeex la kon nag tawfeex jooju moom la ñu yéene mbooleem Sénégal nañu dikk ñu ànd màggal ko nañ ko daan màggale ñu dikk ci jàmm màggal ci jàmm dellu ci jàmm ñu ngi sant ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërë ngeen jëf